chers amis internautes nuyu nañ leen di leen jox li nga xam ne moo di seen wàccuwaay tey nag ñuy ñëw ak yéen ci 15 août est-ce que xam ngeen fan la 15 août jóge lan mooy origine 15 août ak lan la 15 août di représenté fii ci suñu réew di Sénégal 15 août nag ñu gën ko ràññee fête boo xam ne suñu mbokku catholique yi dañ koy féete chaque année mu tombé nag euh, mu nekk jour boo xam ne férié la fii ci suñu réew waaye nag 15 août nak euh, mom li tax suñu mbokku chrétien yi diko ko modi dafa tombeek jour bi nga xamné ki di soxna Mariama di yaayu yesu christa jour bi nga xamné mom la génn aduna euh, di dem nak fële nga xamné modi ci di euh, mom la ñuy feete di jouru 15 août fi ci suñu réew nak gis nañ né chaque 15 août en français euh, les chrétiens commémorent li nga la montée au ciel de la Vierge Marie euh, auprès de ki nga xamné di Serigne Touba Khadim qui di soxna Mariama du ko wax ne yow soxna Mariama jigéen ju sell yaayu insa euh, mën nañ wax de ci biir li nga xam ne moo di fusti Serigne Touba ma ngi cay ki di soxna Mariama di ko félicité naan ko yow mi respectable yow mi amee pureté surabondance et de bonne œuvre sainte patronne des femmes chastes tu au-dessus de toutes les élus du Seigneur sublime et insondable mu nekk loo ku ko déglu sa yaram dina daw waaye est-ce que xam ngeen fusti fusti mi ngi composé ou de douze versets ñuy correspondre aux douze étoiles de la couronne de ki nga xam ne moo di soxna Mariama ba nekkoon ci boppam muy symboliser aussi grandeur et ak lii di ay vertu tamit mu le nombre de correspondants égal aux douze tribus d'Israël. Voyez, Mouchade, l'île du 12 verset ou Fousti, nous avons représenté l'île du 12 apôtres, Jésus-Christ, ainsi que douze portu Jérusalem mu nek nak lu yéeme yéeme yéeme ci euh, xasida fusti boobu Serigne Touba Don ki di soxna Mariama don ko ca tag mu nek nak xasida bo xam kuy jigen rek boko deglo ba nga lire ci wax dalay ci lu bari te kuy jigen rek war na euh, référence ci ki di soxna Mariama di yaay yalla Insa li lañ leen ci j'espère que l'air na ci ñu xana rek ñuy laccé ci internet yi ku ñu nous lu waral jour 15 août chaque année muy taw fi Sénégal ku xam li di signification bi nañu ko dans les commentaires les lañ leen indi ci bonne fête de l'ascension à toute la communauté catholique au Sénégal et partout dans le monde portez-vous bien